waaleykum salaam alhamdulilah nuyu nañu leen yéen ñëpp euh, di kontaan si seen euh, li konu bi ànd def ni di leen yëgal na sëriñ bi kontaan na ci kontaan na ci euh, mu ngi leen di ñaanal yàlla di leen dellu dénkaat li ngeen bokk mooy yàlla ji kon na ku nekk defaraat pas-pasam ñu xam ne weeru koor bi ñu nekk ni weeru defaru la ñu jéem ci góorgóorlu ci sunu jaamu yàlla comme ni ko sëriñ bi waxe nee nak mom du sëriñ bo xam day nax ndax bu keroogee amul ben talibé bu koy tardal wallahi mom liko waran liko war ci digganteem ak boromam mu ngi ci góorgóor li ko war ci digganteem ak sëriñam amul ci gestu sëriñam lu xol lu sëriñam wax loolu la wax lu sëriñam waxul gisu ko mhm. kon nak talibé yi nga xam ñom lay andal ci yoonu yalla mhm. nañu xol mom lumu mu wax nako talibé taalibe yu lumu lu mu wax lu mu jëf nako talibé taalibe yu xool kon nak ñu and ak mom ci lool té bañ di naxanté sëriñ bi naxuñu ñun buñ nax suñu bop yalla lañu dénk ak suñu wayju ñana na bu keroogee kenn du ko tàll mom day dem yonam talibé bu toppoon ci limu wax di nga and ak mom ci yoon ci tal kan ñu yalla boole ci ñuy top ci limu wax bu kéro ge inshallah buñu mer te ñi ah, ñi ñi ñuy xoolee yeneen bët tam yàlla bu ñu am ndam si sunu kaw. kon yàlla nañu yàlla bàyyi sëriñ bi. sëriñ bi yàlla yàlla.